bi bëgg a léegi star la quoi xale bi bëgg a ñëw léegi ndaanaan la xale bi bëgg a ñëw léegi maanaam artiste complet la c'est un acteur il a été comédien ba pare spectacle yi mu def ci Abbas yooyu yëpp dafa cartonné booy bi ci armée bi la nekk passé na commandant ay accident ay capitaine booy bi ba pare dafa dagg turam am naa dafa ragal police bi il se tout simplement commissaire bu ñu wàññi tàccu leen ma bu baax a baax a baax a baax commis. Gudamina eh, eh Baba Amina yo ngudamina tew terminni new new terminnene minne ndimbiri ndi pirte pir new ndimbere terminnene minne wurande titi new new terminnene minne ndimbiri mi tite pir new ndimbere terminnene minne wurande nini new new terminnene minne ndimbiri mande nabir minni new terminnene minne rota sasal pipi dal pinjal cakir gigi sambar kinde picel kigin tar kindi gin ginjal tergi bisaminda rupi pindal patal pindal capil pipi sambar pindi pipi jin tabadin minni ñun naa fi Ndiaye wax premier nii bàyyi leen ba sonnee dina arrêté bàyyi leen rek ba bala sonn la kenn du ko wax dara kenn du ko wax dara xaar leen rek sonn na sonn na ka kaay ma yóbbuwaat la leen der périmètre la ew na du ñëwaat mais cosaan est-ce que vous êtes là namoon na ma leen nag wax dëgg yàlla namoon nit ma mais maa raw bizarrement man ma famille man kase maas si mel nii man kase maa si topp yoon wa ban ay ambiance bongo kacax kacax ma famille ñëpp ay arabisale mais ñoom ñëpp wàcce ne ay kaamil man mii sax wàcce na ma kaamil daa ma weddi laaj ma na ma wàccee kaamil ba pare ma armoire papa am na am pëggaay kaamil chaque jour mu yëkkati benn wàcce ko si suuf wàcce na may kaamil wala wàcce may kaamil tàccuwaat leen loolu mais ñu famille Baye Mbaye Sarr moo si raw moom la raw wàccee kaamil la def moom daa dem ba Arabie Saoudite jël concours am alxuraan bañ a fay ka si 10 millions Baye Mbaye Sarr premier jour am Ndakaaru mu war a julli ji fajar sa jàkka ja Baye Mbaye Sarr sangu na ba set sol ab jàllaabeem ba weex tal yor kurusam la dox ndànk-ndànk cakkas-cakkas jël ab taawam kenn du ko rey Baye Mbaye Sarr yàllaa ka nattu mu lem koñ bi rek dajee xale ba jigéen tout niw nekkuñ la sangoo ay saafaraam Baye Mbaye saar bi mu juddoo ba léegi mu ngay door a gis loolu ci àddunaam xale ba jigéen baa ngay sangu Baye Mbaye Sarr dañ kaa fixé xale ba jigéen baa ngay sangu Baye Mbaye Sarr dañ ko fixé 5 heures ba 7 salaatu Baye Mbaye Sarr jotuloo julli di jàkka ja mu ngay fixé li mu gis rek xale ba jigéen baa ngay sangu tooy na niin na neex na Baye Mbaye Sarr dañ ko fixé ba salaatu Baye Mbaye Sarr a jékki saa rek sa leeru waayi i aw lan laa la def nii bala bandi yi fekkee fii lan laa la wax ndaw si nekka ah bu ma amul la ma ñu jox rek ma jox ña ma bopp Baye mbay saar looloo fëxal nopp bi mu arrière ñaari pas teg kurus gi mu yoroon simmi jaalaabe bi dese absolutement nee na dala bandi bandi bi ñaap ñaari paa ñëw si ka jigéen ci nekka une lan ka jigéen ki nekka xanaa ma jox ña ma bopp rek mu nekka xanaa xamulaa ne man bandi ba la ma lépp ngir bëgg rek ndaw si nekka papa xam na ma la si koñ bi laa dëkk aw doo ab bandi moo yaram wi moo la jaaxal ñaanal rek u yónneem ñu may mara soxna ma lew la dong baa mbay sa ruus ruus ne waxee comme que ka kii moo ko wax lii du ko gën a doon gor mu nekk damaa yónnee may mbokka ma la léegi mbokki ka jigéen ki laaj ko 10 millions 10 millions ya mu gañe woon si prix alxuraan ba teg na si 3 millions nekk 10 millions yi maa la ko may 3 millions yi jëndal lépp am ndox del sangu na la tooy rek tooyaay ba gisoon moo ko si impressionné Baye Mbaye sax 3 millions la ko jox pour am ndox naan ka na la tooy rek xew mi jot na bongo yaa ngay riir koñ bi faa tourné la dégg kaca kaca kaca kaca kaca kaca kaca kaca waski gi gën loolu intéressé wul Baye Mbaye mu ngi jël ndox mi la xëpp ndaw si te naan kan na la tooy rek ndaw si tooy na xib mariage bi tas na Baye Mbaye Sarr dañ kaa yóbbu hôtel jëndaat na kaat mbàndi ndox la xëpp ndaw si te naan kan na la tooy rek demee ba hôtel ndaw si tëdd Baye Mbaye Sarr xëpp na ndaw si am ndox xëpp ko ba nit bi diig Baye Mbaye Sarr desul la dul mu passé à nag Baye Mbaye Sarr ni ko pëkk soxna si dimba ba léegi maa ngi laa tooyal instant yi fexeel ma tooy waay nañ jublu si ut ak njaboot gi waay ba tey soxna si réagirul mu ne xëy na li ma ko tooyal dayul Baye Mbaye Sarr jëlaat ñaari bidooy ndox xuppaat ka ndaw si te naan ke eh dama ne u ñëw ñu yokk xeet wi ba léegi ndaw si deful réaction Baye Mbaye Sarr laal mbaggam mi xëcc rek ndaw si ne ngalañ ndekete yow Baye Mbaye Sarr sanga na kaa sanga sanga ba ndaw si gaaju dee na jotul a joxe na 13 millions am koñ baa ngay riir ka ne ngay taj woy sama ndey ay waay Baye Mbaye Sarr gëmal yàlla yàllaa ko andi moo ko yóbbuwaat gëmal yàlla yàllaa ko andi moo ko yóbbuwaat moom amul kenn am problème de kii ko andi woon te yóbbuwaat ko noonu la amal problème Baye Mbaye Sarr waxul kenn dara daa jàpp ba set jàkkaarloo penku bi te naan ko ku baax naka mu lépp di am jotul benn fois en retour mu naan kaam bala niixee mën naa maa bañ a fay de kii aka andi woon yóbbuwaat mais man may 10 millions lekkoowul noonu de Baye Mbaye Sarr toog na 10 jours yaa xam ne dala misère 10 millions yi saay ba fajar jotee mu julli jàpp toog jàkkaarloo penku bi espérant que million yi dina ñëwaat dixième jour bi mu xaat bi taxawaat nee na yàlla laa waxal de te naan ka nii léegi daal def lala nii naka nekk def la ka nii man liiw gën a bañ la maa dem defi gars foog ne la nekk laa Baye Mbaye Sarr ne ko maa ngaa màndi ji Baye Mbaye Sarr baar bi mu njëkk a dugg lépp la la xeeti sàngara nankati sàngara yi xam naa ñaamaa limal tey saa yow ko xool sa kanam ji xam ne yàgg naa naan sàngara yan xeeti sàngara laa xam ba ma kenn wax lu fi yo ban xeeti sàngara ay na kenn ka beneen ah pastis vin royal dutch kaani kenul spaghetti vermicelle lépp la Baye Mbaye Sarr boole si benn kaas nekk fatam si la Baye Mbaye Sarr gëjee xam la xew noppay naa wal wal wal wal wal wal la mu xool mu doon cinq si moom Baye Mbaye Sarr barman bi la njëkk a lool mu ngi jàkkaarloo baarmaan bi mais cinq baarmaan la jàkkaarlool Baye Mbaye Sarr ngi xëccëb siisam toog ne nii aj benn tànkaam jàkkaarloo baarmaan bi la gis cinq personnes naan ko waaw ah, waaw sa yaaya bandita mën a investir kay juróomi doom ya góor jël ña def ña ay jaaykati sàngara Baye Mbaye Sarr daat yaa ngay gën a guddi na békk yóbbuwul du baax Omaro yàlla rek bu ba ma jox sa bakken garaawul billaahi non barke yàlla billaahi man baax na waaw man moom bu ma jox sa bakken Baye Mbaye Sarr guddi na taat yaa ngay gën a iig bekk yóbbul mu ñibbi bu baax heureusement ab ami d'enfance am mu ngi si wetam Baye Mbaye Sarr geesu tiin mu la docteur si docteur si ab xaritam la Baye Mbaye Sarr butit yaa ngay waññaaru Baye Mbaye Sarr ba naan ko docteur si xoolal ma sama malaise bi waay Baye Mbaye Sarr docteur si nekkat dina ma la xoolal sama malaise mais balaa loolu Baye Mbaye guddi na jugal ñu ñibbi jamono boobu Baye Mbaye Sarr mu ngi màndi ba aj tànk droite bi si kaw taabal ji te naan ka man ba ñu maa ñibbi de mais ma tànk droite la ma xamul fan la ma ko tegat docteur si nekkat Baye Mbaye sa tànkaa ngi nii déggal jugal ñu dem bàyyi may sa rus ba naan ka sarab lii rek sarab lii la ma wax mais bàyyi may man dama la bëgg a jàppale ñibbi bal ma saaga mu nekk àgguma sa sa bala ma em loolu jeex na docteur si ikki na ga ñu jóg génne baar bi tak premier cas ab soq benn quatre cas da jóge Patte d'Oie ba zone de captage ñu rël bi 4-4 bi te pièce wu pièce ya nekk jaar na le police ñëw na constat am mandikat a gën a dëgëru fit nag Baye Mbaye Sarr nee na mooral ni pali coow li ni mu demee Baye Mbaye Sarr jóge fële ak mandem man la ma baax a fekki man la dëgg la de 4-4 bi ni mu doon dawee bëri na wool waaye patalampe bii moo tooñ ndax moom moo doon daw sens interdit Merci beaucoup, Tessa.